ويسر لي أمري واحلul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi wala ci bitim réew mi ñuy jël suwaat ci seen plateau àndaat ak yéen ci seen émission bi di arrijal xawla rasul ngeen ànd kook seen seen El Vision Média tabarakallahu ñu nuyu suñu caméraman bi di suñu kilifa di El Hadj Lo barakallahu ak itam suñu soxna bopp bi di soxna Jeynaba Balde ak itam mbokk yi mu ko àndal yëpp ci mel ni sëriñ Saliou barakallahu ñu nuyu leen ziar rafet lu seen liggéey bu baax a baax a baax mu mel ni nag dellusiwaat nañ ci seen émission Ar-Rijaal Hawla Rasul comme ni ñu leen ko waxee woon ca Aboubacrine Siddiq Ar-Rijaal Hawla Rasul ne ma leen ko daan waxee mooy ngënk yi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene ñëw dëgtal leen ko benn par benn incha allahu bi ci li ñu ci temps bi may rek mu mel ni jaaroon nañ ci Abubakar Siddiq dundu gaag juddu gaag tabaarakallahu jihaad gaag ak ya ca aju yëpp tabe gaag dëggu gaag tey nag mu mel ni dañuy jël si ci deuxième saxaaba bi nga xam ne moo nekk deuxième xalifa yonent bi sallallahu alayhi di jàmbaar ja di ponkal ma di ko dëggu ko moom itam nekk koo xam ne lépp loo xam ne daana ko def ci diine daawul ragal ku ko ci yedd ndax lim daan def ci diine la ko daan teg yàlla lu mu bëgg la lu yonent bi gërëm xoolu ci keneen mu di Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab nag tabaarakallaahu dañ ciy ànd ak suñu mbokk suñu wëllëre suñu xarit di Oustaz Gamou ni ma leen ko daan waxee mu fas yéene ñoo développé ki nga xam ne mooy Omar ibn Khattab waaye balaa loolu Oustaz ñu ngi lay nuyu di la bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi dugg ci thème bi incha allahu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 leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa bi ñu sante yàlla sant bu yeeyoo jëmmam ju tedd ju màgg ja. Mm-hmm. julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uh, ñu ngi lay nuyu yow Oustaz di la ziyaara. Mm-hmm. di la jox sa cër Oustaz Babacar Sall. Mm-hmm. ñu ngi lay wàcce sa wàccuwaay. di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp. di nuyu suñu caméraman El Hadj comme ni nga ko waxee. ak soxnaam ak ñi ma àndal liggéey bi yëpp. di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay di leen jox seen cër. jërëjëf oustaz euh, mu mel ni oustaz ki ñu war a waxtaanee tey yàlla daf ko mayoon ñaari cër bi ci njëkk mooy Omar laata muy nekk jullit jullit ñi ñemuñ ko woon waaye ginnaaw ba mu tuubee ba pare itam yéeféer yi ñemuñ ko woon ñaari grade yi moom la ko yàlla may mu nekkoon koo xam ne saxaaba la woon comme ni Abubakar nekkee saxaaba waaye itam nekkoon ku dëggu moom itam nekkoon koo xam ku jambar la woon bu xare jotaan ba nga seen ko ci géew moom Amar da ngay xam ne dëgg dëgg neexul ba neexul mais jàmbaar la ñu fas yéene ko waxtaane oustaz tey fas yéene andi li nga xam ne mooy ba ni ko defee woon ci Abu Bakar ndax dafay jaadu nit ñi seetaan xam kan mooy Omar wala kan mooy Abu Bakar naka la juddoo fan mooy askanam fan la bokk naka la daan ànd ak yonent bi loolu lañu fas yéene mbokk yi benn par benn ci seen émission Ar Rijaal Hawla Rasul oustaz ci gàttal bu ñu bëggee xam Omar mooy kan. waaw oustaz comme ni nga ko waxee. Mhm. Omar bu ñu ko waxee Omar ibnul Xataab. Mhm. ibnu Nafid ibnu Abdul Uzza. ibnu Kaab ibnu Luay ibnu Fihri. Mhm. kooku mooy Omar ibnul Xataab. bu ñu toppee cosaan bu ñu toppee waaw. Euh, foofu yaltaqi maa nabi sallallahu alayhi wa jaddi rabi. Omar mi ngi dajeeg yonent bi ci ñeenteelu maama. kon ci askanu yonent bi la bokk. sallallahu alayhi moom amati giiru xuraysin la bokk ba mhm. tey ci xuraysin la mhm. euh, comme ni nga ko waxee jàmbaar la woon mhm. laataa muy tuub bi mu tuubee tamit kenn gënu ko woon a jàmbaar Omar ibnul Xattaab euh, Omar sax am na loo xam ni yàlla may na ko te mayu ko yonente bi salaasam te yonente bi mooy ndax Omar mbedd mu mës dugg iblis dina daw abal te yonente bi amul woon loolu ndax yonent bi Moussa taxaw di julli. Uh-huh. Iblis dina ñëw a jéem a ñëw yàq julleem. jax-jaxal ko waaw jax-jaxal ko. te amoon mbedd mu Moussa na solo. Iblis day daw dafa mu kon Omar Ibnul ñoo bokk askan. jàmbaar la woon. te mi ngi bokk ci jiiru Quraysh. xam nga maanaam bokk na ci tedd ngaay Omar rek. bokk gi mu bokk jiiru Quraysh rek. tedd nga la parce que yonent bi dafa wax ne xaddimu Quraysh wala tu xaddimu wala tu axiru nee na fu ngeen mën a dajee. kenn ci njabootu Quraysh nekk balaa ngeen jiital kenn da ngeen leen jiital ba pare. kon Amar bu ñëwee bokk ci Quraysh. mooy tombé la sama am joxoon rek. al-urbu ah. xayru unaasin summa xayruhum. Ah. Quraysuhum wa huwa xayru xayrihim. ndeysaan kooku ci Alxaaj Malik moo ko wax yàlla yàlla fayal ah. euh, mu mel ni euh, Amar kon li nga wax sànq. bokk na ci booy xool sax jàmbaaram mooy laataa muy tuub julli bi buñ daan nodd nanguñ woon nodd ci kaw. ki daan nodd mooy ki nga xam ne mooy Bilaal ibnu Rabaah keroog bi nga xamante ne Omar tuub na tabaarakallaahu pour wax la cër bi ko yàlla may bi mu ñëwee di tuub si ndeysaan saxaaba yi ku yóon noo gis ñu Omar da ngay pour wax la xëtër bi mu amoon ak jàmbaar bi ak dëgg gi mu dëggoon moom Omar bi mu waxee loolu ndeysaan ku yóor ndoo tiit ku yóor ndoo tiit yonent bi ca bëgg jàmm yonent bi ca laabiir yonent bi ca mbaax ga mu ne leen ne leen ko tafaddal bu ñëwee pour jàmm fekk fi jàmm bu ñëwee pour ay fekk fi ay ñu jël jaasim ñu ray ko si moom Amar te Amar laataa muy tudd ndeysaan dafa dem këram fekk ñu fay jàng alquran di jàng ba tool bi taahe ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tazkiratan liman yaxsha affaire bi dugg ko moom Amar ndeysaan mu bëgg a laal alquran bi soxna si ne ko laa yamassuhu illa almutahharun balaa nga koy laal foog nga dem laab parce que sobe nga ndax yéeféer nga nekkoon Omar dem jàpp ba sell sangu ndeysaan laaj fan la yonent bi nekk loolu moo waral pour ñëw tudd oustaz mu mel ni kooku nag tey bu ñu bëggee xam juddoo moom Omar fan la juddoo ak naka la juddoo moom Omar waaw Omar mi ngi judd fii li ginnaaw bi atum ñay ba atum ñay mooy at nga xam ne ca la Abraha takkoon xare pour mab toji kaaba gi bi mu amee 13 ans bi xare bi jàllee ba mu am 13 ans ci la Omar ibnul Xataab judd euh, bi ñu yónnee yenente bi mhm. ci atum ñaar fukk juróom-ñaar mhm. ci la Omar euh, ci bi muy bi ñuy yónni yónnante bi. sallallahu alayhi wa sallam euh, as mi ngi tuub. dugg ci lislaam boobu mi ngi am ñaar fukki at ak juróom waaw mu méngoo Kaaba gi ci xilaafa gi. donc mi ngi am cinquante deux ans bi muy jot ci xilaafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mujjee nekk amirul muminina mu yor xilaafa gi euh, fukki at yu toftal Eh, juróom benn weer yu mm-hmm. toftal ñeenti weer mm-hmm. ak ñaar fukki fan mm-hmm. waaw loolu ci li ñu à peu près noonu la Omar juddoo waaye nag Omar mi ngi gaa mi ngi génn àdduna mi boobu mi ngi am soixante euh, soixante deux ans uh-huh. boobu bi muy bi muy génn àdduna mi ngi am uh-huh. soixante deux ans waaw soixante ans la am bi muy génn àdduna kon baayam moo nekkoon xataa waaye ku la te bàyyam tamit ku tàngoon la. Mhm. bàyyi Omar ku tàngoon la koo xam ni kenn ñemewu koon woon amuloon xarit. tout ça dafa mel ñoom dañuy bëri lu ñuy dàkkantalee ci seen bàyyi. waaw comme Ousmane Ibn Affan ndax xam nga boo gisee loolu. bu njëkk sant amul woon sant léegi la am. Mhm. waaye bu njëkk dañ naan diw doomu diw. waaw mhm. diw doomu diw moo tax ngay jégg Omar Ibn Khattab wala Aboubacar Abdullah Ibn Abi Quhafa. yooyu lañ doon waxee bu njëkk Ali Ibn Abi Talib seeni bàyyi lañ leen doon dàqantale <laughs> waaw Omar nag bàyyam ñu ko doon xataa <laughs> léegi bàyyam tamit ku tàngoon la <laughs> kenn ñimewu ko woon téere yi sax nee nañ amul woon xarit allah moom bàyyam waaw bàyyam amul woon xarit oustaz loolu lu ñàkk lu taxoon mu ñàkk am xarit tàngam moo taxoon wala tàngan waaw ah. ñàkk caaxaan Omar nag xam naa ci loolu la jël moom it ndax nit bu nuroo bàyyam wàcc na man tashaaba abaahu famaa zalama wala araba lu sa bàyyi tooñoo kon Omar noonu la noonu la juddoo Omar yaayam mi ngi tuddoon Hamtana bintu Hashim waaw Omar ak Abu Jahlin ay mbokk lañu woon waaw ndax Aba Jahlin mooy Omar ibnul Hisaam nekkoon na kër papay Omar moo Xaalid ibnul Walid tamit ay doomu bàjjan lañu woon kon Omar ñii ñii la juddoo ñii nii moo nekk askanam waaw Omar tamit doon nañ ko dàkkantele ñetti dàkkante waaw doon nañ ko wax euh, Aba Xafsa yenente bi moom ko tuddewoon Aba Xafsa mooy bàyyi Xafsa euh, di soxna ci yenente bi doon nañ ko ko dàkkantele doon nañ ko dàkkantele alpha ruux mooy ki teqale dëgg ak neen ki teqale dëgg ak caaxaan doon nañ ko dàkkantele ndax Omar lépp lu muy dugg rek dëgg lay nekk beneen bi ci topp doon nañ ko dàkkantele euh, doon nañ ko wax euh, amirul muminin mooy njiitu jullit ñi ñu nekk bi mu yoree xilaafa gi noonu lañ ko doon wax amirul muminina mooy jiitu jullit ñi. mu jiita jullit ñëpp nag ci fulla ak fayda. waaw ak ci dëgg. waaw kon Omar ñetti dàkkantal yooyu noonu lañ ko doon dàkkantale. waaw moom Omar ibn Khattab. di leen fàttali moom la ñu waxtaanee tey ci seen émission Ar-Rijaal Hawla Rasul ngeen ànd seeg seen mbokk seen xarit Babacar Sall ñu dalal ci ki nga xam ne moo di Oustaz Gambo Oustaz ñu ngi ci Omar ba tey de. Mm-hmm. mu mel ni Omar wax nañ judd ga wax nañ askan wa wax nañ jàmbaar. amar dafa mel dafa am benn jikko boo xam ne daf ko bokkale Aboubacar Siddiq muy dëggu dëggu parce que booy xool wax nga ko ci sa biir wax nga ne li tax ñu tuddee ko dëggu mooy moo séparé diggante dëgg ak fen li annahu farraqa bayna alxaq wal baatil ndax nata muy tuub l'islam boobe jullit daawuñ nangoo noonu ci kaw daawuñ nangoo fësal ci kaw waaye bokk na ci tey l'islam bu demee ba fës ba toll fii ba yéeféer yi nekk màkk yëpp ko ñu ngi ko yëgee ci may bi nga xam ne moom la yàlla may Omar Xattaab mu nekk dëggu c'est pas ak fenn xam nga foofu ma wax la fa leen ah. bi mu duggee ci lislaam ah ah. mooy ñeent fukkeelu nit bi nga xam ni mhm. moo dugg ci lislaam mooy ñeent fukkeelu personne waaw የሚድጉጭ ሳምጥራን ነው ብለኝ ሳላን ነው ሲሩለር pasal yang ya, jadi mungkin karang karang ah. karang tawa karang tawa sabar apa kan gitu gitu kan salah tapi bami ni laqat ci dar al arham fofu lañ doon laqatu bi amal duggé ci l'islam nak dañu yonenti xana dañu ñoo nek ci deug yonente bi ni ko waaw mun ko ku dee ci dem aljana hmm. nga wax mu ni ko waaw ku dee dem safari, mu ni ah. ko waaw mu islam ci jox na ñuy nëbbatu macha allah moom amaat te li ma gën a neex ci moom mooy moom yonent bi li muy nekk nekk kilifaam bu dëgg taxawaan daf koy wax wallaahi euh, bari na loo xam ni yonent bi day wax lii uh-huh. Omar wax lii te yàlla bu ñëwee ànd ak macha allah kon loolu yàlla tamit moom mi ngi jàngale ne moom dëgg dëgg la rek abu mook Abu Bakrin mi ñu doon waxtaane fan yi uh-huh. dañoo mos a werante ci benn masala uh-huh. Omar ni ko bokk pas-pas moo gën a dëgër mbokk deret ndeysaan Aboubacarin ni bokk deret moo gën a dëgër mbokk pas-pas ndeysaan ñu werante ba dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme mooy seen kilifa te mi ngi fi mhm. ñu dem laaj ko mhm. ñu ni kon ñun dañ doon werante mhm. Aboubacarin ni ma bokk pas mbokk deret moo gën a dëgër ma ni ko mbokk pas-pas moo gën a dëgër mbokk deret yonent bi ànd ak Aboubacarin ni mbokk deret moo gën a dëgër mbokk pas-pas ndeysaan yalla yoni jibril ni ko nee ko bokk pas-pas moo gën a dëgg allahu akbar ànd ak omar masha allah omar euh, kontaan ba yàgg muy jooy ndax yaay na kilifa ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon omar nii la ku dëggu la woon mhm. ah, ku ñàkkoon caaxaan la bari na loo xam ni bu werante ak yonente bi alxuraan ñëw ànd ak ndax bu yonente bi musaan wax dara ak limi muy doon doon kilifaam danaan ko yalla moo la ko wax wala sa xalaatu bopp mhm. bu fekkee yalla moko ko wax man bu leen xalaatu bopp man mu indi xalaatam moom moom Omar lu ci bari waaw yàlla day ànd kon loolu li nga ciy jàngee mooy que ne yàlla moom lépp loo xam ne dëgg la rek si loolu lay ànd loolu bi li muy doon doon yonent bi li muy foor foor li muy màgg màgg yàlla mooy am lu muy jàngal. yàlla li muy jàngal mooy yonent bi du juum. lépp lu mu àtte noonu la waaye yàlla mi maa yow teel anil waaye yàlla mi ngi jàngale ne kon dëgg bu taxawee dëgg rek la leneen lu dul dëgg neen la waaw oustaz mu mel ni Omar ibn Khattab ba tey ci lañ nekk ku wax Omar ibn Khattab wax lislaam ga ku wax Omar ibn Khattab wax njàmbaar ga oustaz Omar ibn a naka la duggee ci lislaam suñ ko soo ñu ko bëggoon a tënkal tey pour ñu xam Omar ibn Khattab ndax dafay jaagu nit ñiy déglu di seetaan mën a xam kan mooy Omar ibn Khattab dëgg dëgg dëgg ndax tey réew mi boo xoolee oustaz dañu réere saxaaba yi gis nga tey bëri la nekk ci réew ñoo xam ne boo leen laajoon saxaaba yi ñeent rek ci xam Abu Bakr Siddiq Amr ibn Khattab Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib te pourtant am na ñeneen ak yoo xam ne jaadu ñu xam leen léegi nag incha allah ñi dineen fàttali ne noonu la leen ko fas yéenaa toppalee benn par benn ba ngeen xam kan mooy saxaaba yi dëgg-dëgg oustaz bu ñu ñëwee Omar ak lislaamam waaw xam nga Omar ak lislaamam xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon ñaan ndax boobu lislaam laqatu bi metti na yéefar mhm. yi ñu ngi néewal doole jullit ñi yonente bi ba jàq ñaan mooy ngànnaayam uh-huh. mu ne allahuma aizal islaama bi ahadil umrayn macha allah omar ibnu alxataab aw allah mu ne yàlla yàlla na nga dëgëral islaam benn ci ñaari omar yi omar ibnu wala omar ibnu hisaam muy abu jahl ah, yàlla nangu ñaan bi mu dal ci omar ah am na ci téere yi sax ñuy wax ñu ni yàlla yonente bi bi muy ñaan ñaan bi dafa fekkoon abu jahlin dafa tëdd dëpp Amath dafa tëddoon jaaxaan moo tax ñaan gi tàgg waaye mbiru yàlla la ah kon sax doguma la waaye loolu kon loolu moo tax ma dégg ñu naan waaw tëddee njaaxaan baax na baax na waaw tëddee njaaxaan ay baax na ala kulli haal ndax yeneen tamit nee na ah. tëdd dëpp tëddin waa safara la macha allah kon ayaasu billah naa di jaxatu ëllëg naa loolu yéen bi wax yàlla ci yàlla musal kon yàlla ci yàlla musal mm-hmm. kon am na téere yu wax loolu mm-hmm. waaye xëy na loolu mbiru yàlla la mm-hmm. en tout cas ñaan bi moom yàlla ci Omar ibnul Xataab la ko bi mu ko da bi ñaan gi nangoo ci moom nag ci la dugg ci lislaam mm-hmm. loolu mi ngi nekkoon ci atum juróomeel mm-hmm. bi yonent bi ñëw ne yonent ba mu am juróomi at wala juróom-benni at waaw mm-hmm. kon loolu mooy islaamu omar comme ni nga ko waxee sànq euh, ba mu demee ci kër mbokk moom ñuy wax Fatima fekk euh, xabaab doon leen jàngal xabaab ibnul arab moo leen doon jàngal alxuraan bañ déggee ne omar mooy ñëw rek dañoo daw la xabaab moom dafa daw làqatu ji waaw lagi, bi amoon ñëwee dugg ci si Fatima. Mhm. nee nañ sax am na téere yu ndax koo bitti loxo ba jëbi toj xam nga jigéen bu de gisee deretam rek mhm. dootul faale dara mu commencé nag ni ko ñoo tey mhm. nangam nangam ñoo dugg ci lislaam ah ci la Omar nag xawee wàcc ni ko léegi ma xool li ngeen doon jàng mun ko du la ko jox ndax yow sobe nga ndax yéefal nga nga am sobe da ngay sang ji jàpp mu door la koo jox ci la Omar sang jàpp mu jox ko mu jàng faaha ma anzalna alayka alqur'ana li tasqa ila liman ah ci la laajte fi yonente bi nekk sallallahu alayhi wa ñu wan ko ko bi mu ñëwee fëgg comme ni nga ko waxee dañ ñu bari dañoo daw làqatu ji ñu bari dañoo daw làqatu ji Hamza ma nga fa woon Hamza ñu ubbil leen ko bu fekkee jàmm la fi indi jàmm ñi fi bu fekkee leneen la fi indi ay la fi indi nag ñu rey ko ci jaase non nii la demee dugg ci lislaam comme ni ma la ko waxee sànq comme duggee mooy ñeent fukkeel bi nga xam ne moo mooy ñeent fukkeelu jullit kon lim bu ñeen fukk ñi lu am solo la ci lislaam ah, ndax yenente bi sallallahu alayhi bi mu amee maam Seydil Hadji Malick wax na ko bi mu amee euh, fanweeri at ak juróom-ñeenti at ak juróom benn weer lu mu gént rek dañuy teg bëtam bu xëyee. ndeysaan moom Omar. moom moom yeneen tamit. bi mu amee 40 ans ci la ko yàlla yónni. ndeysaan bi mu amee 40 ans ci la ko yàlla door yoon yónni. léegi Omar tamit bi muy dugg ci l'islam 39 la. Euh, bi mu amee bi mu ne bi mu duggee mu nekkee 40 ans ci la lislaam boobu jëm kaw. macha allah moom amaan waaw moom amaan kon dafa mel ni li naan am nga way wu dul fay tabaarakallahu moom la Omar def mm-hmm. ndax tey lislaam bu demee ba toll fii ñëpp war nañ ko sante ginnaaw yàlla Omar Xataab li nga xam ne moo jaayanteeg diine moo jaayanteeg yonente bi moo jaayanteeg borom bi subhaanahu wa taala fës yéene joxe bakkanam bi ci lépp loo xam ne diine soxla na ko mm-hmm. waaye itam fës yéene joxe li nga xam ne mooy àllam ci lépp loo xam ne diine soxla na ko wax nga ko ci émission ba le moo mooy moom Aboubacar keroog ba yeneen di yónnante bi laaj mm-hmm. Omar joxe dara bàyyi dara Aboubacar joxe lépp waaye oustaz ku wax Omar mm-hmm. xam ne ku woyofoon la moom Omar ibn Khattab ku suufe woon la damay wax ne képp kuy président tey si tey bu ñu la jàngalee naka la Omar doon gouverner réewam naka la doon gouverner ak jullit ñi naka la doon doon jiite kon tey képp kuy président war nga mën a fexe ba kenn du la xàmmee ak li nga xam ne mooy si peuple Oustaz Omar ku woyof la woon Omar ku woyof la woon ni nga ko waxee mhm. euh, gis nga bu guddi musaana jot bi mu nekk amirul mominin mhm. day wër dëkk bi di mhm. xool ba xam am na ku xiif wala am na ku mar ba ba benn guddi sax am na seen soxna soo xam ni daf koo fekk di ko di ko déglu ay doomam di jooy amul lu mu leen jox mu leen di nax teg cin li teg si ndox pour mu pour ba xale yi mën a nelaw mu doog a mën a tëdd Omar bi mu yëgee loolu nag si la doog a dem ci baytul maal ci alalu jullit ñi di bu fa lu am solo ñëw jox mhm. kon noonu la doon dundee mhm. di doon maanaam biñ ko jiitalee rek mhm. jiitaluñ ko rek mu toog waaye dafa doon xool problème mu askan bi moom Omar waaw Omar ibnu Xattaab radiyallaahu taala di li jënd seen problème bu bu ko xamee mën cee taxaw. moom dafa mel ni maanaam intérêt nit ñi moom la jiitaloon. jiitaloon intérêt bokkul wallaahi. ndax Omar da daan ñëw sax fekk mu tëdd ci sa stade. ci bassin kii mooy amiru moom yow da ngay tiit da yéem. ndax maanaam turam fi mu yegg ak grade bi ko yàlla ràngal. ak lu toll ni julli nga jiite leen. Mm. ba pare bu nit ñëwee di la seet fekk nga nekk ci suuf wala fekk nga tëdd ci suuf kon loolu dafay wane ne kon wàcce woon moo tax mu wàccee woon boppam Omar looloo tax mu wàccee woon boppam te man tawaadaa ah. waaw yàlla yëkkati la képp kuy wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la rafahullaa man tawaadaa rafahullaa ñi deneen fàttali ne yéen ngi ànd ak seen émission Ar-Rijaal Hawla Rasul ñu ànd koog suñu mbokk suñu xarit suñu wóor la di Oustaz Gamou Oustaz dafa mel ni li ñu am ci waxtu xam naa dafa mel ni ñuy signalé li des bariwul kon bu defee Euh, ñi di la jox euh, dig daje. ci beneen émission waaye balaa loolu Ousseynou Mbaye dana tàggoo ak mbokk xam naa comme ni ñuy tàggoo rek tàggoo bu dul tàggatoo. Omar moom dañ koy yamale foofu beneen ñi mot. incha beneen Omar jeexagul ko ndax jeexagul. xaajagul sax ñi xamal mbokk yi sax ci Omar. dëgg dëgg dëgg xaajagul duggaguñ ci ndax xajul ci benn émission. xajul ci ñaar xajul ci ñett. ay émission ay émission la. waaw xam naa kon ni ñuy tàggoo mooy. Mhm. dañuy santaat yàlla rek. Mhm. julliwaat ci yonent bi di la santaat nga xam ne yaa ñu dalalaat ci sa plateau mhm. euh, di di wax ni lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng nag jàmm doy rek moo doon jéemal wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa jërë ngeen jëf seen émission arijaal xawla rasul tey ñu ngi ñëwoon ci ki nga xam ne mooy saxaabu bu amar ibn xataab barakallahu ki leen di présenté bi di seen mbokk seen xarit ko xaritam oustaz ngeen ne ci ibn ndax na te li sax neex li nga ndax li naan li jur ci nag xaju ci ne lii lancement bi la rek ñu ngi leen jox di dajee ci beneen émission ak beneen sahaba ci ci li nga xamante ne mooy El Média bi muhammadin wa bintihi wa bi baaliha wa nayhum shibtayni ala min huda wa bi sahbihi wa tabiina lahum fahum sadatna ahlul makarim wa nada alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa jërëjëf kontaan nañ asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk internet yi waaye mbokk ñi nga xamante ne ñi ngi safoo di seetaan seen El Média ñu leen di ziar bu baax a baax man la seen xarit seen rak soxna Salimata Maron ma leen indil émission bés tàkk émission bi ñu naan taaru diine ji taaru diine ji boo ko déggee képp koo xamante ni da ngay fësal benn mag ñi danañ la sees fa nga nekk invité la bàyyiwuñ tiijaan ba di laayeen ba di xaadir bi bu ci murit bi ak ñi nga xamante ni ñu ngi nekk musique afro arabe bàyyiwuñ leen seen émission taw dina ci émission bés tàkk muy am fi ci Elvision Média bu leen bëggee ñu invité len da ngeen ànd ci numéro bi 77 896 33 17 wala 78 106 73 81 Elvision Média abonnez-vous alhamdoulillah